va faire effet. à propos troisième mandat bi yow tu pour. Ah non je suis foncièrement contre man je l'ai depuis depuis des je suis foncièrement contre kooku moom man ñu koy def sont dee bandes yoo xam ne dañu bëgg a taal dëkk bi damay dégg parfois ñoo ne opposition bi bëgg a lakk dëkk bi xale yu immature lañ xale yu matul lañ ah mais kan moo bëgg taal dëkk bi ku dul ki ne fi woon man bu 2019 jàllee pare naa ci man 2024 pare naa ci bokkuma ci. olof français bind ko ci téeréem ba noppi ñëwaat ci ay xale yi génn ci suuf di wax première son direct cabinet waaja Diallo Omar Anne xawma ministre ñëpp mu nga promouvoir leen c'est un acte loolu wax la donc c'est une communication te nga bàyyi ñooñu ne non opposition bi xeex loolu bi xeex démocratie ñoom daal ñoo ñoom daal ñoo xamul démocratie ñoo bëgg ñoom ñoom ñooy pyromane réew mi le vrai pyromane c'est ce qui demande troisième mandat ici aujourd'hui mais est-ce que ci euh, dafa mel ni ñoom ci seen ci seen parti biir APR dañ ko loolu dafa bokk dafa bokk ci ñu dafa bokk léegi ci ci ci dundu APR ci week bi ñu génn rek daanaka ñoom comme ñi nga lim ñi ñëpp kenn toogul Ndakaaru ñëpp dugg nañ ci àll bi pour prone euh, troisième mandat buy te troisième bi. Euh, ñi ci ñi ciy wax ñu bëri liñ ci ragal mooy dëgg bi tàkk. c'est le chef qui indique la direction loolu la bëgg c'est ça la vérité koo fa wax ku fa ku fa wax le contraire doo fa toog ana Moustapha Diakhaté ana ana Moussa Diop mais ce qu'ils le disent ñii mais Mimi Touré mais ñu xam ne rek ñi ko fii wax fee leen Macky Sall yi bàyyi ñu def ci peuple sénégalais bi te ñoo jaboot te bu gàcc ñëwee ci seen kaw lay dal te su Macky Sall demee ci biir dëpp dañu am gàcce ak réew mi su peuple bi lànkee du fi amee dañ dañu am gàcce ak réew mi donte nag xam naa ne ñu dara saful leen dara saful leen parce que ñu àndoon nag Ablaye Wade ñu ànd ak Macky tey toujours transhumants yi ñoo gën a foncé ci loolu mais attention te li fi Macky Sall waxoon doy na campagne dafa leer dafa leer dane man bokkuma ci et puis même conséquence bi ñu bëgg a référé mënul indi mënul indi euh, avis wala décision plus importante que l'auteur de la constitution li mu wax kooku dara ëpp ko valeur dara parce que même conseil bu ñu amoon problème dañuy référé waat ci auteur bi li mu bind ki ko bind nee na lii laa bind nul waxaat ko li lim ko ñetti yoon ak ci ministre wax ko waaye waaye nu may xoolaatee Macky Sall la ñëw kon Macky Sall waree nekk candidat na ñëw neen peuple bi man li ma leen waxoon depuis toujours depuis boobu ba léegi di leen ko waxee nii du dëgg su loolu dëgg nag loolu mu fi waxaat du dëgg su fekkee ne lii Macky Sall waxoon ci constitution bii ne du ko def loolu du dëgg lu fi Macky Sall waxaat du dëgg kon jërul sax dégluwaat parce que ni mu waxee nii rigueur bi ñu ci am du ko amaat ci neen nu muy waxee leneen donc je suis catégorique des nag le choix du peuple choix peuple bépp génn ne ko yaa fiy nekkaat loolu leneen la le peuple est souverain mais jusqu'aujourd'hui ñi bëgg a lakk dëkk bi mooy ñiy prôné troisième mandat ñi amul benn culture d'état et nag am fit osé maa ngi dégg ensemble xaw ma seen groupe taxaw naan way ah opposition ce sont des garçons qui n'ont aucune culture de l'État kan moo amul culture de l'État mooy ki trahir ñëpp dem ñëw du ma def troisième mandat ba mu jàll ñëw taxawaat dama koy def c'est lui qui n'a aucune petite culture d'État c'est lui a trahi l'esprit noble de la Dior de Serigne Touba et tous les dignitaires les gens de valeur suñ demee ba njiitu réew waxam amatul valeur li mu fi waxoon lépp dara du ci dëgg lu mu fi waxaat du dëgg maanaam kilifa dafa war sàmm kàddoom. non oui non mais surtout nag kàddu boo bind signé ko wax ko yëpp surtout côté constitution Sénégal yaakaar naa Sénégal duñ ko nangu yaakaar naa ko. donc euh, même bu fekkee ni constitution bi euh, may na ko mu demaat euh, def troisième candidature bi moom comme que joxe na kàddoom ci war na sàmm kàddoom pour joxe exemple à la postérité bu ko constitution bi ne demal sax mu ne nee de joxe naa sama kàddu ba pare. boo constitution bi ne ma mën ngaa def vingt te moom mu ne woon man Macky Sall duñ ma dégg jamais ci waxi troisième mandat man loolu laay xaar gis ko su fekkee ne nag accepté nañ précédent dangereux wu kat constitution bi kat lii la wax nee na la durée est ñu tànk ko ci durée chaque fois mu des quatre mois mën naa yokkaat durée bi la mu waxoon dañ ñu ñëwaat ci lu bees loolu kon Macky Sall ba boo mu déclaré boppam empereur empereur lañ ko waxee. empereur empereur c'est ça bañ fee jógee ba jamais. su ko defee ñi politique bàyyi li ñuy def dem doxi leneen man su boobaa man chef de parti la mais ma dellu Touba di bay comme ni ko maam ak ñoom doon defee amul problème alors donc kon yaakaar naa le peuple va faire effet peuple bi du ñu ko bàyyi mu jàll de su dee peuple ba ma xamoon man ñoom lay nekk donc adresse wu ma ci Macky maa ngi xaar peuple bi lan mooy nekk seen réaction alors euh, ban di cour de compte euh, ñi cour de compte épingle nag ci loolu la ñuy profité looloo neex chef looloo neex pardon dégg naa saa ko bëgg looloo neex soxna si loolu la ñuy wax mais on verra de toutes les je compte sur le peuple sénégalais pour dire non. beneen bi mooy euh, sëñ bi euh, politiciens yi as lim bu ndaw lañu ci biir euh, citoyens yi mais dañoo lëmbee réew mi ban message benn message nga leen di lancer parce que dañu dañu dañu lëmbee réew mi dañu këf xelu nit ñi di leen fowe toujours ñu en perpétuelle campagne électorale la ñuy nekk. toujours ba ci week-end bi passé moo ci génn bi ñu génn moo ci mujj. parce qu'ils son tous de même école man daara laa jàng alxuraan laa ñoo toog di wax amul problème am naa lu may bañ sama diine donte nag néew ma sëriñ moo gën waxuma loolu de waaye dama ne nit ki lim jàng daf ci am solo ñoom jànkuwut tubaab bi yëpp classe politique bi fi nekk quatre-vingt-dix pour cent c'est la même école naxe rek Macky Sall lan la fi waxoon lan la fi waxaat tey lan la fi Abdoulaye Wade waxoon moom lan lañ ko fi jëlee moom lan la fi Abdou Diouf waxoon bu muy soog a ñëw quatre-vingt-un deux lan la mujjee donc c'est la même classe mais opposition bi am na ci ñoo xam ne xam ne ils donc euh, voilà. Euh, personnel politique bi fi nekk malheureusement am na ci nag nit ñu ñu am valeur mais yaakaar daan nit ñi danañ seetaat danañ xool fan la ñuy dugal seen seen seen seen seen seen vote. à propos journalistes yi euh, Pape Alé euh, démb dañ ko servir mandat de dépôt tey jii juge deuxième cabinet bi déglu na ko ba yóbbu ko def ko mandat de dépôt actuellement nii ma gërëbës. ñu ñu war a yóbbu di xaar ñu yóbbu ko beneen prison. ñi ñu war a yóbbu rëbës mooy band yi bëgg a taal dëkk bi troisième mandat c'était c'était la candidature de trop de Blaise Compaoré c'était la candidature de trop de Alassane de Alpha Condé j'ai peur qu'il soit la candidature de trop de Sénégal te réew yëpp daf ko déstabiliser kon ñii bëgg a weddi waxi Macky Sall jim ne woon man pare naa ci bëgg a weddi Macky Sall waxi Macky Sall jim ne woon nul nul Ismaïla Madior Fall wax ko bëgg a weddi Macky Sall jim ne woon man man man 2019 bu jàllee sañatuma nekk candidat ñii ñoo bëgg ñaari rakk la amul ñett ñaar voilà voilà mu ngi noonu donc kon ñi bëgg a lakk dëkk bi bandi yooyu wëyu yooyu yoo xam te fu ñu woon ak lenn loolu seen intérêt bopp kese parce que ñenn ñi xam nañu Macky Sall du jógee ñu jàpp leen ñi xam ne bu fi Macky Sall jógee duñ ci amati intérêt nañ lakk li ci des dëkk bu tàkkee seen yoon nekku ci mais ñoom nañ ci génn ñooñu ñu am esprit manque de valeur yooyu ñoo ñu am esprit esprit njaam goobu nga xam ne si xaw ma xeet ni surtout yu ñu doon ñooñu la ñu war a arrêté ñooñu ils sont ce sont les vrais méritants de la prison que Pape Alé Niang yaa ngi doon wax sànq ci euh, waa maanaam sëriñ si ñu war a li ñu war def pour que euh, préférence nationale bi ñu sensibiliser ci njiiti réew mi euh, bu ko defee les chefs d'entreprise sénégalais mën a mën a wane seen seen seen seen capacité ak rendement ci réew mi mais est kilifa diine yi ñu bëri dañ leen dañuy xotti seen orma. waaw parce que parce que cell yi nag dina expliquer loolu parce que su ma la yaakaaree àdduna ak àllaaxira àdduna ak àllaaxira nag àddina ak àllaaxira du àllaaxira rek bu ñuy jébbalu dañ naan jox nañ suñu àddina ak àllaaxira tey di doxeek yow noonu nga gis nit ñëw di ma duma sa te mënoo ci dara su ma la ko timit mere naa la lii problème la donte nag. ñu ci bari ci kilifa diine yi seen entourage dañ leen manipuler dañ leen jox fausse information parfois kilifa diine yi nag wax du nëbbu parce que seen yar ak ci seen teggin am na foo xam ne duñ fa àgg ak njiitu réew ci caméra wala ci kanamu nit ñi day ñu ngi wax lañ war a wax mais soo amee njiitu boo xam ne si du dégg lu dul intérêt du dégg lu lu mu bëgg a dégg rusul kenn faalewul kenn dina bari lu ñu def ne kilifa diine la te fekk du kilifa diine yi. moom la doxinam la te kilifa diine yi duñ weddi mais nag bu soobee yàlla dinaa weddil kilifa diine yi ba mu leer naññi bu soobee yàlla kilifa dina yi aaye Macky Sall troisième mandat dinaa leen lim kenn ku ne jaay sa tur balaa ëllëg luy mën a xew ñoo noo kilifa diine yi ñooñ foon wala kilifa diine yi dañ doon jàppale Macky Sall bu soobee yàlla mu nekkoon waxtaan boo xam te ni ñu ko doon seq ak euh, sëñ Modou Bousso Dieng muy chef de parti di chef religieux di citoyen sénégalais bi nga xam te ni euh, xam na lu bari ci réew mi te di ko xeex ngir euh, doomu sénégalais mën na assumé wu mën a mën a assumé wu mën a peek li nga xam te ni moo ko moom ci muy sunu alal ci réewum Sénégal donc mbokk internet yi ñu leen di jaajëfal di jaajëfal sëñ bi xanaa bu fekkee ne am na un dernier moo rek. Mm, sant leen bu baax di leen gërëm man seen man seen euh, téléspectateur auditeur en tout cas seen site bi daal dama ci abonné chaque fois dinaa ko vérifier plusieurs fois te sax damay jot notification yi chaque fois te leen siiw ci liggéey bu rafet mi ngeen def maa leen di gërëm di leen sant asalaam. kon mbokk mbokk internet yi dégg ngeen li sëñ bu wax donc euh, mooy donc yéen ñëpp. wala boog dama leen ngeen yeesalaat ah, donc pour que ngeen euh, jël euh, télécharge application bi bu ko defee lépp lu xew ci réew mi ngeen koy am en live et en direct jërë ngeen jëf ba beneen yoon.